ci kuusu say bokk rek kay ñëw kon amal say bokk ba noppi am ñëpp ndax olof nee na nit mën naa gën ay bokkam waaye mënu leen a génn Sëriñ Tuubaa gën Mbàkke Rasuulaay gën waaye génnu leen nit mën na ëpp lay bokkam waaye mënu leen a ëpp Macky gën ëpp lay bokkam waaye ëpp leen nit mën naa raw ay bokkam waaye su bëggee aw doxinam rafet fa mu taxaw nekk leen ku bàyyi say bokk ndax neexetu jamono bu jamono soppi ko rek nga xam ne lu waay am ta say bokk ñàkk nga ko te koo téye bàyyi say bokk